alors mbokk xeetal na di Wassare Lamb gannaaw ba jógee géej waaye ñu daal di attiré fii maanaam si Pikine ka lañ fekk ci Boy Niang doomu Dégol bi doomu Pikine bi le Thiapathioly ko xoon na tante kan le lion di géej waaye comme lu ko waxoon waaye gis ngeen waaye nu mu xumbee Pikine tamit noonu la neexee boo nee boo nee Pikine da nga naan lamb par force boo nee Pikine da nga naan mbër par force waaye boo nee Pikine da nga naan Boy Niang par force. la ñu ngi si jaamu. tur bi naka Saliou la. waaw. combat bi ndam rek. incha allah. waaw ku ñuy bëree tous. dara géejewaay. si lan. des eh. arènes. Balla Gaye xamal lu ñu koy bëgg ah, ji si lan bokk. te si karam la lépp di leer. Eh, mo ñaa kase amul leneen xalaat ñaax. waaye nee na yéen da ngeen bëri wax. nga ni waaye nee na yéen wax nga am ci combat bi da ngeen bëri ñoom noo ñoom noo yelloo wax di wax ñun xamuñu sax luy wax jëf lañu gën a mënee nu wax. déggoo ma de. waa géej waaye dañuy xaar gaan ñang baalu moo fi ne de xalaat ñaax. mais gis ngeen promesse Balla Balla xam nga du benn. waaw du benn si lan. si lan. moo. a war na sëñ Bamba mais Balla Gaye day xaare gaan. Balla Gaye instant si forme de. arbitre <laughs> <laughs> eh, moo fi bàyyi. nee ko mu bàyyi doom la wax. arbitre moo ko fi bàyyi. la ñu wax Balla Gaye gars yi génn ko màgget la. arbitre moo ko fi bàyyi barki Serigne Touba Mbacke bu dëggalee boom dañ ko duma dañ ko daan. arbitre moo ko fi bàyyi jamono ñu toll nii day day day mbaraju du wax rek moo gën a bëri wax ñëpp. dafa dajeeg Boy Niang boo gën Boy Niang gën koy pare <laughs> moo tax mu ne final ay Boy Niang dafa bëri wax barki alxuraan kirim arbitre moo koy bàyyi arbitre na fipp dañ ko duma dañ ko daan moom xamul tax Boy Niang mënut a bëree ba fii Balla Gaye di ko téye soo ko si loo xel mën koy nangu sax Boy Niang gën nekk yaakaar lamb gudduñ toll nii Balla Gaye dafa màgg dafa pare na si lamb ji instant yi day dem dem dem jaamu ci yàlla bàyyi bàyyi Boy Niang nee ku mënul daan la dëgg mënoo daan ku mënul daan kan ku mënul daan la dëgg mënoo daan la dëgg moom man moom man bàyyi Balla Gaye sax waxuma laa waxuma laa Balla Gaye Lac de Guiers ma man bàyyi Balla Gaye nga naan ma ku ma daan ku ma Lac dama la Balla Gaye moom na lijjanti boppam na lijjanti boppam dañ koy daan lu mu mën a xew dañ koy daan moomin dañ koy daan cappacoy la moomin la moomin war na sëñ Bamba yàlla yàlla toppewu ko dara taxool jaam ñi sax toppewuñ ko dara tamit sax toppewuñ moo ala atu gaani ba nga ne lan ah dégg eh booy fais attention booy maa ñëw nga ne booy ñaa lañu wax ñun. booy <laughs> sa yuuxu métti ma nga booy ñaa lañu wax booy maa ngi ñëw. <laughs> baax ñu ngi lay ziar. amul tus amul tus tus tus. parce que xale yi amul dara bu dara amul dara. voilà. ah may la ko mu wax may la ko. ñu amee xawoon nooy tuuti parce que Guèye laa jógee waa Guèye ma yóbbandi si yéen. non non fi mën da nooy. gars yi dañoo añ ba pare di xaar mu wàcc. defal ndànk nga ni da ngaa demoon géej waaye mu xumb. ñoom lan naroon a victoire woo moom la ñuy xumboo foofu benn yoon parce que heure bi lañ si am. danoo jeexal. ñun li xaar dem motlu stade di ñëw fii yëngal ko mais xam nga dem di mëlim ba lii cëli cëli loolu dafa yomb. di dem di ñëw. barke borom si kër. Balla Gaye xaase moo ko boole xaalis moo ko boole yow xamal lan la burki dem boo Ndiaye Balla Gaye bu ñu ëppoon xaalis am na loo xamante ni moom Bombardier mii ko daan bu dee côté boobu la fii affaire du loolu yàlla sunu borom moo yor ñëpp te moom bu ko xalaatee noonu neex na ko parce que àdduna tëriwul noonu bu at bi soufflé mu xam ne xale bu ndaw la jàngoo deel dégg ko duma daan ko six minutes dese yaa jirat Balla Gaye rakam saa kees bër ki dem koy indi papaam di ko indi ñoom ñoo ngeen mu ñëw te boo ñaa bi càppa la ay ñu ngi jugee ba Grand Mbao Sambala moo nekk ikiri Boy Niang Grand Mbao lan jugee ñu ñu ngi nii after party almiya bu Sam baa ngi nii gaa yaa ngi xam nga kan soxla gaa yi si kaw di daw booy bi nañ ko jël booy bi defal leen bagaas ñun ñoo ngi nii ay lébu lan lébu yaa ngi weex tal mbër naka waa. mais naka waar. yaa ngi cool lépp jàpp. ñu bi. combat bi gars yi ngi koy waaj ko war a waajee rek. yàlla yóbbu ñu si stade ñu dem si jàmm ñëw si jàmm. ñu ñaanal boña si mbër yaa ko yàlla may ndam. jàpp ngeen mu ngeen na ko daan kay amuñu sax lu ñuy ragal. combat bi ne amuñu dara luñ siy tiit. dañuy jàpp baale kay jàpp ko daan ko ñibbi si. jaa jaa Fall. waaw ah, sëñ bi. naka waaw laamu ñu moom li ma leen wax rek deux heures lay doon daan mag daan raq. billaa walaay talaay ak Serigne Bamba li ñu liggéey li ñu liggéey ko sax pour Balla Gaye des na ñeneen. bakki maam Serapha la ñuy liggéey du pour bala Gaye sax ëpp na sax ci Balla Gaye ëpp na sax ci Balla Gaye meex mi xañ naan ay Macky ñëw seetaan bu ñëwee Macky Sall defee tam rek la fi fekkee bu barkee maam Serapha dañ koy duma daan ko wur na yàlla waaw ndeysaan combat bi boo ñaa combat bi combat boo waaw waaw ndeysaan Balla Gaye day ambiance di talaxu yo xoolal ndox di tegu yoon barke yenente bi lamb ji xoolal 2 la daan rakk la yàlla wax waaw ah, ma fiya tuto na ku dee sa yaay ñu saamur saa ñaa amul ragal

Balla Gaye laa la wax ni du dara bu ko jàppee nga xam ne ay doomu Pikine ñoo ko téye Boy Niang xale bu ndaw la billaay wala jàpp rek defeer day araju rek baa mu ragaju araju rek baa mu ragaju waaw Boy laa bokk. Boy bu jàppee Balla Gaye da koy dóor ba dagate ko. Paal na xam. waaw ah, taw feex kay. na xam ah, ah, loolu du combat Boy daan billahi Balla Gaye Boy Niang billahi. mënu ma see wax kase. yow daan jël bu rëy bu leer. yàlla daan. Boy Niang kase amul dara. Boy Niang kase amul leneen. Boy Niang dañ koy dóor si suuf. Caba nooy neex la. maa juum. Balla Gaye nooy neex la. <laughs> koy. jërëjëf xale ma jël ma sàcc benn ba kenn gis ma ma sàcc benn est-ce que mën naa sàcc benn xale non ma bañ ñu dóor fa na waa Pikine. Pikine kese ngeen wax. waaw waaw Pikine dafa dafa low quoi. non lan fii des na si kanam. xaar xaar tuuti xaar tuuti rek laa la nga goñaa bu laa la. bala nga du dara tey lay xam ni. am na combat mi ngi doog am combat. barki yàlla. ni mu daan def ne tey doo nga ne. mais mais bokkul. booy bi daa entraîné booy bi daa nekk si yoon. waaw xanaa gisoo booy bi. gisoo Balla Gaye. gis naa Balla gis naa booy na gisoo boobu daa nekk si en forme bu kee kee daa màgget kee daa màgget kee day daa màgget waaw day xaar kooku day xaar du ma moo ñuy téye yaa ma gën a xam. nii. waaw kay. waaw kay. waaw Pikine nañ waaw waaw booy sa sa caay booy da nga ko dugal nii. caay bi la dugg a. ku desee jurat. waaw d'accord dee ku desee jurat. waaw ñu la wax Pikine nag. barki maam Serap Fall ñëw tey ngir ànd suñu doom mu jëlee ndam lii. non man la cek Pikine. barki sëñ Fallou doomu Pikine fier si nag dëkk fi di xare ndox moom barki maam Seera Fall ñun ay xale lañ xamuñu nuuru buuj mais ku ñu jox nuuru laa ñun naan ko ah. tey cin sans ak ñu këpp ndeem barki Serigne Saliou Mbacké bu arbitre sifflé cin tax waaw waaw gis nga ne sama sama comme sama waay ni mu ko waxee rek bilaa wala loolu lay demee dañuy dem daan ñëw ñibbi si waat incha allah ah yëngal fii te boo ñaa kase la. dama leen di jaaree ñëpp tey nag leen rek moo ñu war. muy ndam maa ngi jógee ba parcelle parcelle laa jógee ñoo fi pour supporter Boy Niang ñoo bokk nag Cheikh na Cheikh Sadbou ah, tey nag tey nag tey nag tey nag dañuy ñaan ci barki Cheikh na Cheikh Sadbou ci barki maamam Cheikh Yirim yàlla na ko yàlla wallu bàyyi si Seydina Mohamed tey ndam rek incha allah rabbi ndam rek bu soobee yàlla. waaw nice waaw cool sant yàlla waaw combat bi ñun instant ni pare nañ yàlla rek la ñuy xaar moom moo ci des non ñun ñoo jur géej waaye boo demee foofu noonu da nga fay fekk waa Pikine ñun pare nañ ba pare instant yàlla rek la ñuy xaar. boo ñaa kii Balla Gaye nee na combat wax rek nga non Balla mooy loolu bala mag la Gaye. Balla mag la te xoolal tey arbitre bu sifflé maa la ko wax Balla day xaadi tey tey day xaadi te boo ñaa da koy indil lu tar tey moo soxla Pikine bu soxlaa ñëppay ñaax. barki yàlla. ndax mu ngi lépp jàmm naaj maa ngi cool waaw sant yàlla. cool maa ngi sant yàlla bu baax i baax. instant bi moom waa Pine pare moom instant moom pare nañ waaw maanaam ñuy dem si làmb yi ñuy ñaan yàlla yàlla yàlla bàyyi yàlla ànd ak ñun quoi parce que tey moom booy xool yàlla waruñu rus tey quoi tey waaw ñëpp a génn. xale yu ndaw yaa ngi nii. Ah, waaw ñëpp a génn xale yu ndaw génn. waaw ñun waaye ñoo ñun si boobam. waaye ñun booy xool ñun ñun ñoo jur géej waay Pikine réew la quoi Pikine réew bi tey. ñoo ngi koy waaj ba mu bëri doole. te booy ñaaw incha allah ñoo ngi koy ñaanal ndam bu bëri waaw. Bapak ñun ñun dañoo ñëw pour bëre pour won ko lu metti lañ ñëw dañoo ñëw pour won ko lu metti teg ko lu metti bilaay walaay. calmez-vous calmez-vous. waaw waaw. Ah, waaw waaw naka kay. yàgg na. waaye booy ñaar rek. amu leen li ngeen xale du tiit. booy géejawaay. paa géejawaay. waa des arènes. troisième âge saa daa feebar. Ah, wérut de dañuy forcer nii rek. yaxee <laughs> mu daanu incha allah. bu njëkk ba ak bii saf safaat moom yàgg na ko wax mag ñi. daxaar du saf safaat. lu maa wax rek. pikir baa ngi seen kër serengil mi ngi si ñun. bu ngoon nañu delloo fa. jeex na incha door mu daanu rek bu neexee yàlla. lool lan bëgg. lool lan bëgg liñ bëgg la wax. loolu lan bëgg. waaw. amareel la tey. yow dafa maa. mais niñ ko bëreloo ba pare doo ko daan. ah waaw ba tey mën ah, na nekk. Zambala ma ah, xalaat day jàpp gars du dóor rek moo tax. <laughs> waaw gis nga noonu la demee. non yu bul yëg de bul yëg. doomu Pikine. waaw maa ngi nii. def jàpp rek bëre daan ñibbi rek bëre xale rek. waaw saa ñu ñu koy ñaanal ndam barke Serigne Touba ndax. tey combat bi du yomb waaw làmb moom mënut a parce que xam nga Boy Niang day waaj Balla Gaye waaj mais dafa dafa fekk na moom day bëre xale bi nga xam ne tey dafa pare ci lépp lii daf ko yàggoon bëgg Boy Niang nekk xale di ko suivre bëgg a bëre moom ba tey yàlla dogal lii am ñu ngi koy ñaanal ci barke Serigne Touba ci barke Cheikh na Cheikh Saad bu yàlla defal ko ndam parce que ñu dañoo nekk ay boy ñun bu ñu amee combat Boy day bàyyi lépp su meeku contact ak may ñu doole ma ñu xaalis yéen ñu ndam ñu soxla mu ñëw suñu biir kër conseillé ñu kon tey lii rek lañ ko mënal mooy ñëw taxaw ko dooleel ko yàlla suñu borom suturaal ko defal ko ndam ci barke Serigne Touba. jaajëf fa tey am naa kay le 3 juin laay bëreel maag Bada Yanda grand combat. loolu. loolu la. Fall naka ko. jàmbaar ñu ngi ziar. taw féex. waaw bi drapeau jàmbur la drapeau jàmbur jarul xëccoo drapeau jàmbur moo jarul xëccoo maanaam li drapeau jàmbur la ka lañ tuddee drapeau bi di Papa John Papa la du géwél géwél bee bëre drapeau bi bu toogoon sax ñu ndil ko moo ko moom drapeau jàmbur loolu am lu xëccoo de suñu alal la guddi guddi fi lay fanaan si coow lay bëri ni rek wax ji rek la ci am lii drapeau la géwél bi ñu tuddee géwél bee ko moom mais géwél dañoo baax géwél dañu am maye ko ba mu ñu joxee cent mille ba mu ñu joxee cent mille deux jox mais maam deux cent yooyu mooy maam loolu amoon ci làmb ji moom li ci amoon jël na ko drapeau bi ñu lañ soxla moom bu ko neexee bu ñëwee bu ñëwee ñu daan ko ndànk bu taxawee bu ko booy bi dóoree dóoraat ko maam na ko waa Génégal jox victoire moom bu ko booy bi dóoree mu daanu maam bu ko dóoree du ko dóoraat Balla Gaye du tuus day xaar. bilaay bilaay yow. boo ñaaw kese la. caapa coole man noonu la demee nag. Boy Niang kese. kese amul leneen pour cent Boy Niang doomu Pikine. doomu Pikine bi kese la ñu wax Boy Niang kese la ñuy toog. mais bu moom combat bi du yomb. Ah. combat bi mënul yomb ko xam Boy Niang xam ne Boy Niang combat jànk lay bëre ñaari yi jàll moo ñu bëgg ñoo yab mais Boy Niang ko xam-xam ni combat jànk lay bëre tey day leer ci kanam tuuti. Pikine a ngi nii booyee fees del. waaw mais instant fees. mais fii dafa des xum quoi géej waaye nga dem booy yuuxu di wëy. mais xumul fii la ne instant yii da ngeen tardé da ngeen jiitu géej waaye bëgg a ñëw fii nii. booy yaa ngi sànq ba tey di ko yëngal. waaye dinañ yëngal yéen tardé. ah bon danañ yëngal eh. ah gars danañ yëngal wala. ah def ci suba ah. waaw mais xam nga rek job bee ko laaj. ah doo dañuy sonn sax mais xam nga dañoo dafa am ñoo xamante ne dañoo dañoo signé teg ñoom contrat muy internet yi. xam nga tey yow yaa ngi yow yaa gaay yéen a fanaan man ak yow ñoo fanaanoo fële ca soirée ba gisoo mi ngi nii naaj mi ngi tàng ñu ngi waat fii si terrain bi mais noonu la c'est parce que gars ko jaral rek. noonu la demee parce que gisoo booy sànq loolu lañ doon wax li ngay wax nii sànq booy loolu lañ doon way liggéey am nañu ko doon waye quoi fii ça joob la rek après yàlla gis na lépp te xam na lépp incha allah force lay doon milliardaire kenn mu dara incha allah tew taal ba sànq lool buñ jaaraleel Sadio bu soobee yàlla fa lañ jaaree paa bi te bu sooba yàlla yàlla dinañ yàlla dinañ yàlla may dinañ may ndam bu soobee yàlla incha allah rabbi salaamaaleykum waa presse bëgg naa la yéen ñëpp ñaan suñu mbër nag am jàmm nag waaw boo demee si Balaga dama la yóbbante si Balaga laa jógee kay nee na yéen wax nga am si combat non ne ko ne ko da ngay saf-saf lu quoi ne ko boo ñaa mooy xale saf-sap borom toj kaani paccal li nga rij bëggaj borom tasa dagg sa ndawal naan sa dere ko xëy doomu dégol bi toxal si limon waay sant alhamdu maa ngi cool waaw mais gis na mais lamb ji moom sa waay naa la xamal benn affaire benn coup la rek Balla Gaye su jëlee benn coup wàcc na. sànq waaw na parce que loolu moo am parce que Balla Gaye tamit kooku xam nga na day mamb mooy loolu te Balla Gaye xam nga mooy loolu bopp bi baaxul sa waay intelligent la da koy nax daan ko dem yoonam. bak sëñ yaa ko tur faal nga ni. mais jom lay. yaa ngi cool waaw. combat bi tey du yomb. non day yomb sax day gaaw day gaaw combat bu combat bu gaaw lay doon day gaaw rek kiñ teg la ku yéex doo gis jël bi. booy naa booy naa daa woon bëri combat yi gaaw loolu problème. non non tey da koy gaaw la sax waa day ñëw te te te boo boo yaa day remise te Balla Gaye mébbi lay indi te boo yaa day remise war a day gaaw. xoolal maa la woon xoolal maa la woon xoolal maa la woon. maa la combat bi ko xaar te fan laa ko booy ma ñëw. yow xam nga mbir mi dajanteel waaw xam nañ Balla parce que Balla Gaye mbër mu mag la ku ne xam ne def na lu ne ci làmb waaye nag dafa dajeet koo xam ne xale la yow fi ne position yi toll waaw Balla Gaye dafa war a joxe làmb ji rek loolu ma koy noppal fi mu ne waaye dañuy taxaw sampoon moom bëreet moom daan ko jël bu rëy loolu la def président fasikira boo ñaa dama moon boo ñaa suñu wax suñu borom yàlla ko ma dam ci barke Muhammad amul kenn boolu kenn bañul kenn xam ko naam ci kaw suuf si Mamadou la bëgg bëgg Rasulullah bëgg doomu aadama ñëpp tàllax lii comme mala affaire saar rek moo doon mais nag boo ñaan yal na ko yàlla may ndam tàllax te maanaam pare ñu ma pare ah, sama la pare ba pare moo doon naan wax bu yàgg. la baax. combat tey noo koy dundee. Euh, xanaa mbégte ndax man cousin wu Boña la ba pare nekk seetu Cheikh Irim Ndoumbar man duma sax ñëw ci wante deret deret moo fort deret moo ñu yëkkati. man moom te am nañ ci mbégte ñëw teew ci lu mel nii sa mag di bëre nga jóge Thiès bàyyi lépp daal di ñëw ay saay man xaw ma sax fu ma nekk barke Cheikh na Cheikh Sarr. pression bi. non aw ma pression man am pression parce que xam naa sama cousin ba pare tamit xam nañ Balla Gaye Balla Gaye jaaxaluñu Balla Gaye même bu ko bu kenn laalul rek man mii rek mën naa ko daan. nga na Cheikh même bu ko kenn laalul man léegi mën naa ko daan. Balla Gaye borom borom la de. déedéet xanaa xamoo Balla Gaye boo ñaa même bu dul bëree gi mu bëree rek sax sëriñ la ndax seetu Cheikh du Ndaw la. Balla Gaye kenn werantewul ba du borom gemb wante xamul booy ñaa ba pare xamul ay mbokki booy ñaa te loolu c'est très dangereux xamul ay mbokki booy ñaa li nga Balla Gaye képp koy wax lu ngay njëkk wax mooy gàllaajam yow nga ne Balla même bu ko kenn laalu yow rek mu ko fa. barke Cheikh na Cheikh Saad luy gàllaaj. xaw ma sax luy gàllaaj. xëy loolu duñ la ko mën a décrire fii parce que xaju fii mais boo ma boo ma comme ni nga ma gisee nii boo ma gisaatoon da nga naan déedéet du kii. man <laughs> yaay mu tudd sa masque bi. non man du takk kadduwul. man du ma takk kàggul ñooñu ay ñooñu ay sëriñ la ñu ñooñu te man doomu sang laa doomu soxla la lépp mën nañ ko def ci kurus gi te duñ fi jóge barke Cheikh na Cheikh te di nga gis loo musul gis tey du ay wax ni danga nga far ak déedéet dépassé nañ ci loolu mais di nga gis loo musul gis. si bëre wala si gàllaaj wala ci lépp danga nga ne Balla Gaye gàllaaj di nga ci gis lu ne lu muy ni ñu dagg ko. maire fu lan la waxoon combat si Balla Gaye loxo Balla Gaye wala loxo Boy Niang. moom da kaa seet ba gis ko ba xam ci ku mu nekk. walla jàll da kaa wax moom xamul xamul fan la combat gi nekk ngir ci premier bis bi ñu ko jàpp muy premier janvier. premier janvier kan moo ko mën a seet ba xam kan mooy daan ak kadul daan ku dul yàlla chef yàlla fi nekk yàlla moo xam lépp. te xamuloo ko kenn nag wante ñun ñu ngi ñaan boo ñaan yal na yàlla may dam bu sedd guy ci barki maam Cheikh Yirim Ndumbaan barki Cheikh na Cheikh Sadbou jërëjëf Cheikh bi ñu la delloo bu baax macha allah jërëjëf waay Cheikh bi macha allah. jàmm danga waar sant bu baax waa tey ndam rek ndam rek incha allah waaw xale bi liggéey na lu mu war a liggéey def na lu mu war a def instant yàlla rek moo ci des. te tey incha allah bu 20h jotee wala 19h ngeen xam lépp dëgg la wax nag baaxul. jëf moo baax jëf moo baax. acca bañ demee këñam bala Gaye 2 fekk fa mbooloo mi kankurang yi ñëpp daal di ñëw ñaari di tëmbale fii si Pikine ci bii combat Khalil qui sera le vainqueur de ce combat Balla Gaye 2 Boy Niang Balla Gaye 2 à fois c'est la première fois mën mel ni ku dugg si xale yi. mooy këram point combat mu jaar yéen xale gannaaw mu daane ay moromam daan ay magam dana fekk Boy Niang waaye Boy Niang tamit bi mooy deuxième fois wala bi mooy troisième fois mu daal di dugg si lii di VIP ñu tuddee VIP làmb yi mu am ay defet gannaaw bu mu dee Tapha Tine ak kii di Lac de Guiers 2 est-ce que bii dina nekk combat boo xam ne moo koy may pas wala bag boo xam ne nii si lay nar a jaar wala pont boo xam ne nii si Balla Gaye la doon nar a jaar pour dem si kii di VIP wala est-ce que Balla Gaye encore fois day fenn waat kii di Boy Niang 2 à partir de 19h30 sur Wassare Lamb avec Khalil 19h automatique xale bi jógee Kaolack ñëw Dakar 6h du matin enchaîné dem Guédiawaye enchaîné ñëw Pikine kenn du yow